رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم طر رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على assalamu alaykum wa rahmatullah mbok téléspectateur ak téléspectatrices yu Dak medina ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di ko sàkku ci yeen di leen wax ne seen émission jotay koor del siwaat na tay fi ci télévision bu mag bi di Dak medina TV fi ci Médina waaye mbokk yi tabaarkalla tey sunu waxtaanu koor ñi ngi ko jëmale ci li nga xamante moom la ñuy tuddee ataawunu muy wàllum dimbalante te sunu borom wax na ci alquran ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan sunu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran ne na ngeen dimbalante ci mbaax ak ragal yàlla te ngeen bañ a dimbalante ci bàkkaar ak noonu mbokki ñu ngi ci weeru koor wu tedd wu sell wu mag bari na koo xamante ni tey woor na ba ngoon jot amul 100 francs yu mu jëndee amul juróomi dërëm yu mu jëndee suukar kooku kon ku jara dimbale la kooku ku jara jàppale la nga gis koo xam ni boo demee ci ay compte bancaire am ay milliards nga fay fekk mu gis ñoo xamante la yàlla xam doy yoruñ juróomi dërëm yu mu jëndee mu jël alam di ko tasaari si naka su dul noonu mbokk yi tey loolu lañu indil mbokki téléspectateurs yu Dak Médina bëgg cee waxtaan mais ni ñu loon ko waxee nag dañoo demaat ba parcelle tey indiwaat suñ xarit bi biñ dalaloon démb suñ mbokk muy oustaz Babacar Thiam moom lañ fas yéen àndil ak àndaat ak moom ci waxtaan bi oustaz balaa ñuy dugg ci waxtaan bi rek dama lay nuyu ziar la massahu la coono euh, oustaz bisimilah balaa ñu dugg ci waxtaan yi nga nuyu ak mbokki téléspectateur yu Dak Médina bisimilah oustaz aoudu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mhm. alhamdulillahi alladi la ilaha illa hu wasalaatu wasalaamu ala annabi alladi la nabiya baadu mhm. wa radiallahu an ashaabi rasulillah ixwat mhm. al iman mushahidina alkiram waxayikum bi taxiyatil islam wa hiya asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulah. Oustaz. ba ma sant yalla sunu borom. di mm-hmm. julli si yonti bi nga xam ne amul yonti bi ñëwati gannaawam. Mm-hmm. di wax ngërmande yàlla yéen a nekk ci saab yonti bi sallallahu alayhi wa mm-hmm. euh, di leen nuyu yéen yi nga xam ne yéen ngi saxoo di setaan Dak Médina fii ci Médina. waaye di nuyu tamit mbooleem koo xam ne nii mu ngi ci réew mi di nuyu mbooleem jullit mhm. euh, oustaz Dame mhm. macha allah oustaz euh, nuyoo bi am na solo loolu jotale na oustaz nga ñëwoon démb bu indiloon ñu waxtaan bu am solo tey tamit yaakaar naa li ñuy indilaat dana war a mën a am solo mbokki téléspectateurs yi bu leen ko raté de fii la Dak Médina na ngeen ko seetaan oustaz tey dafa am lu ñuy waxtaanee muy lu suñ borom wax wàllum taawun te ku nekk soxla ci aduna bi ak ku mënta nekk ngay borom milliard ak ngay borom million ak ak ko mënta nekk ci aduna bi rek suñ bona bind la rek soxla soxla nga dimbal legui na tay oustad ñi nekk ci société bo xamanteni man nañ ne ñi fi ñak dafa bari lool ñi fi seen loxo jot seen bari wul oustad ñi nekk ci weer woo xam ne nag weeru la weeru njéggel la profito la parce que Euh, li ci suñu borom subhaanahu wa taala digle dafa dafa dafa am solo loolu oustaz te bëri ñu ñàkk oustaz boo ñu doon ñëw ci wàllum ndimbal lan nga ñëw oustaz par rapport ak ni ko alxuraan détaillé. Euh, oustaz euh, daam ñëwati nga ci thème bu am solo. Mhm. keroog ñëwoon nga ci bu am solo waaye tey tamit ñëwati nga. Mhm. muy taawun dimbalante. Mhm. français di ko wax Euh, bu ma la koy defee niiral dama naan ci araab te arab mu euh, musaada lan mooy mu musaada mooy weccee dimbal dama man lii yow nga man leneen te mhm. kenn mënul lépp nag dëgg la boo manee lii rek am na loo tëlee mhm. la man ma jox la ci bu ëllëgee yow la nga mënoon nga jox ma ci walla ma xam jox la kenn xamul lépp Mhm. la ma xam ma jox la ci boo ëllëgee yow it dana am lu ma xamul ma laaj la nga jox ma. dëgg la. wala li ma man yow mënoo ko waaye yow tamit am na loo man lu ma manul kenn mënul lépp li ma man ma jox la ci bu ëllëgee. Mhm. yow li nga man suma ko soxlaa nga dimbale ma ci. loolu mooy dimbalante. Mhm. waaye bu ñu koy définir si li nga xam ne mooy islam dañ naan. te baadulul musaada alal alal birri wala alal xaq. ibtiraan min eh, ibtiraal ajri min allaahi subhaana hmm. loolu mooy ngay dimbalante hmm. di weccoo wante ndimbal hmm. ci dëgg nag ci kaw dëgg di yaakaar li nga xam ne mooy fayu yàlla mi nga xam ne ni mooy ki màgg mooy ki sell loolu mooy eh, dimbalante dimbalante nag yaatu na trop waaw trop sax fu nekk rek mën na fa jógee bokk moom mooy li nga xam ne ba islaam di xeex ñàkk bi ñuy xeex ñàkk nag jumtuwaay yi mu jël. di ko xeexee ñàkk di ci la bokk. kon islam yàgg na ci solidarité oustaz. islaam yàgg na ci ci li nga xam ne mooy solidarité yàgg na di xeex ñàkk. moo tax man la ba muy xeex ñàkk dafa jël benn jumtuwaay bi ñuy wax dimbalante mu samp ko. waaw naka mooy dee leen joxe sarax. Hmm. kii amul nga jox ko sarax waaye asaka asaka li ko tax a jóg mooy dimbalante. waaw ki nga xam ne baatu sadaxa boo demee ci borom xam-xam yi nee mooy sarax rek. mu ngoog waaw waaye zakkaat tamit. Mhm. ñëw na muy zakka joxe asaka bokk ci li nga xam ne mooy dimbalanti mhm. yàlla bu la joxee ki yàlla jox ay milliards benn biiram bi taxul benn biir ay milliards benn biir tax koo jóg. waaw ay milliards kenn ni tax koo jóg am na am na am na am na am na xaalis boo wala sombo wala am na loo ku ko ku ko suñu borom jox rek. dalaa sédd looloo ku la jox. la ëpp li nga yelloo dalaa joxeloo waaw milliard wax naa la ko léegi xajul ci benn biir hmm. nit ki fu mu tëdd yomb na hmm. te du ko feesal lal bi lu mu yaatu yaatu mën a ko feesal dëgg daal fenn la mën a feesal mooy fi ko tëral ëllëg bu génn àdduna foofu la mën a feesal mais fu dul foofu mën a ko feesal dëgg la kon nag àdduna li nga fi yor nga tëdd ci mu daal mu des hmm. nit ñee ko moom kon na nga jox nit ñi waaw moo tax yàlla indi li nga xam ne mooy joxe asaka ci ñan lañ koy jox ndax damay am alal ay milliards may joxe asaka jox ko oustaz daa mi nga xam ne moom ay milliards la yor comme man déedéet ndax dama yor xale xaalis bu dul jeex war a joxe asaka ma toog yëgle ne dama joxe asaka lundi wala dama koy joxe vendredi ni ñëpp dajaloo ñu ne diw mooy joxe asaka ma bëgg ci bës déedéet loolu taxul jox islam da ngay xool ñi nga xam ne amuñ. waaw yelloo ko nga bañ koy def ay somp somp nag. jox kii 1000 francs kii 2000 déedéet loolu taxul ñuy wax ndimbal. mooy nit ki dañ koy jox comme li ñu waxoon léegi tembe passé. muy ndaw dañuy xool ndaw loo xam ni kii ku am avenir la ku am yoon la pour dem. Hmm. amul lu ko yóbbu nga hmm. dimbale ko. tey Sénégal wax dëgg la baaxee nañu. Hmm. ñu am ndaw yoo xam ne yu baax ay bopp lañ. mais la na mu leen manqué mooy ki leen dimbale kese. bëri na ndaw yi seen njàng di yàqu. ñàkku leen dimbale la. bëri na ñoo xam ne seen métier mënul continuer. Hmm. ñàkku leen dimbale la boo gisee marché ambulant kii marchand ambulant yi bëri loolu rek la xamatoo foo jëm rek nga ne xaaral ma dem jaayi soo amee sa benn dix mille nga départ. boo demee ba ci commencé gis sa bopp la nga xamoon nga mujj ko fàtte. Hmm. kon dimbal mooy li nga xam ne nii mooy tax dëkk bi mën a dem ci kanam tant que hmm. defuñ ko rek du ñu gaaw a dem oustaz Dame. dëgg la macha allah xam nga boo xoolee suñu borom am na juróom-ñetti xeet yoo xamante ni suñu borom booy xool mu ko lim daxañ leen ci benn ay alxuraan wax ne ñii moom lañ war a jox asaka ñii lañ war a jox ñii lañ war dimbale ñii lañ war a jox sarax moo tax mu doon wax naan innama sadaqaatu lil fuqaraai wal masakini wal aamilina alayha wal muallafati qulubuhum wa fi rixaabi wal xaarimina wa fi sabilillahi eh, wamnu sabili juróom ñette xeet yoo xam ne kenn ku nekk la suñu borom xam ne ne kii bu tollee ci état bii rek da nga kaa asaka soo baa war na ko dem na ba ne donte ki nga xam ne sax dafa yore ay milliards sax ay milliards mais keroog ba muy voyage yi cent mille francs la dugal ci poosam dem voyage yi bi mu demee cent mille francs yi jeex ci sax kooku sax suñu borom nee na sax kooku dañ ko war a dimbale sax xam ne ko euh, jamono boobu sax euh, maanaam ku ñàkk la ci instant boobu waaw euh, nga wax ñooñu la alquran wax ne nañ leen jox asaka mhm. waaye dama ne asaka mhm. dafa bokk ci li nga xam ne islam da koy xeexee. Mm-hmm. Eh, ñàkk ñàkk. Mm-hmm. asaka nag nekk dimbalante. Mm-hmm. dimbalante ba mu ne ko divenir ne dama na la mooy nga jël loo xam ne nit amul ko nga jox ko. boo liggéey yow di nga am loo soxla loo amul mu jox la ko. dëgg la ma ne temps yi dama gis. benn waaye boo xam ne dafa defar benn machine. machine buy bay. baykat yi son nañ trop. dëgg la baykat yi jaaxle nañ amuñ kenn ku leen dimbale. amuñ fen fu ñu waxee. ñoom lan moo leen jaaxal. mooy dañuy bëgg dina seeni njaboot waaye nañ koy fa ñu fexee ba am ko mu mënu euh, dafa jafe. léegi bu ñu amoon ay machines yoo xam ne nag dañuy day da leen euh, permettre ñu mën a yeewi seen i yooyu. su boobaa dana dana gën a yomb. Uhuh. dañuy dem ba nga xam ne sax ñoom dootu dootuñu soxlaati ndimbal. Uhuh. léegi nag bu ñu demee ba créer ay machines yoo xam ne nii nit da koy mën a bayee. waaw loolu ka ko defar. Uhuh. bu ko état jëloon dugal ko ci boppam. di ko toppatoo di ko dimbale bi kooku dina dem ba nga xam ne nii waxuma la moom kenn rek waaye dana gàddu ay bokkam hmm. waaye dana gàddu ñu bëri bëri ci euh, société bi hmm. kon daam loolu bokk ci ndimbal hmm. état yi ñoomu ne war nañu dimbalante waaye état tamit war na dimbalante ak yi ay doomam su ma gis sama doom bii xelam baax na sama doom bii nii ku am yaakaar ëllëg la naa ko jël récupéré ko toppatoo ko bu ëllëgee muy jëriñ ñeneen ci biir xeer bi loolu dimbalante la état dimbale na ni kooku mhm. waaye ni kooku tamit dimbale na état ndax loolu bu ko defaloon dañ naan état moo seetaan ay doomam comme état nag kooku fexe na ba état am ay doomam fu ñu dugg kon mhm. kooku dimbale na état mhm. dimbale na ko waaye moom it dimbale na dimbale na li nga xam ne mooy eh, xeetam waaye tamit xeetam yi dimbale nañ ko kon lii mooy dimbalante nga jox ma ma jox la rek ci oustaz Dame jërëjëf oustaz euh, am na beneen question bu moo la bëgg laaj mooy xaw ma yaa ngi koy seetlu wala naa defe naa da ngay seetaantale xam naa. Mhm. comme mhm. gis koo xamante ne na dafa gis ñoo xam ne ñu ñàkk lañ. Mhm. mu yore ay tàndaramaam ay suukaramam ay meewam lu ne. lépp lu ñu war a dimbale euh, kii doomu aadama rek mu yóbbu ko mais suy dem lenn rek moom mu ca xaw ma rek mooy suy dem dafa yóbbuwaale caméra te islam dafa bëgg sutura ku suturaal sa mbokkum julli rek suñu borom suturaal léegi kooku di dem yóbbuwaale yooyu yëpp yóbbuwaale caméra am. Mhm. pour film ki nga xamante ni kii moo ñàkk est-ce que kooku weeroo ko parce que ku ñàkk dafay bañ toujours foo ko fekk dafay xaw am kersa yow nag nga dem jël sa caméra dëpp ko nga ne moom ngay dimbali nga jàngat ci nit ki buy dimbalee mbokkam euh, war na ci ànd ak sutura ndax affaire bi. tilka ayaamu nu daawilaa bay na naas. bay na moom daal mbir moo xam ne daal. moog dee ñoo yem rek ñàkk ak dee ñoo yam waaw day wër rek. Mm-hmm. sa mbokk bu ñàkkee nga reetaan ko ëllëg mën nga ñàkk. la kon benn bul la boo xam day wër rek ku sa numéro feeñ nga gis ko. Mm-hmm. léegi mën nga xool kooku noonu pour weer ko. Mm-hmm. di ko boo waaw bu ëllëgee boo ci tollee est-ce que di nga bëgg ko la filmer. maanaam bëgg bës bëgg ñu ne kii moo joxe nii kii moo joxe la lële kii moo joxe maanaam daal da ci xaw ma ñu ci bari dafa ma jàpp ne tur lañ ci daal. te dimbal amul amul heure amul jamono. amul période boo xam ne dañu wax ne ci lañ war a dimbale nit ñi weeru koor déedéet nit ki période bu nekk rek war na mën a dimbale mbokkam julitam mhm. waaye boo ko dimbalee tamit bu ci xool lenn xool ci jëm yàlla mhm. moo tax innama nut'imukum li wajhillaahi ah. la nuridu minkum jazaan wala shukura a mhm. ngi leen dimbale waaye bëgguñ ci yéen sax ngeen wax ñu merci shukran nit ki koy dimbale bul xaar sa la merci maam li waji laay daal li waji laay boobu nga amee fay si nga amee fay mais li ngay def na ko fan bëgg ñëpp gis ko bëgg ñu ne diw moo joxe li suñu borom nee na maanaam mënoo gañe fii gañe fële. day nekk xaba an mansuura. waaw pënd bu njiiri rek muy naaw mu dem. Mhm. moo tax nit ki boo koy dimbalee. waaw bul def ni ñuy def jamono jii nii. Mhm. nit may la nga ne yaayam na la lu tax waxu ko merci merci gi du ci dara. Mhm. moo ta tax alquran ne laa nuridu minkum jazaan wala shukura. bëgguñ ci yéen sant mooy bëgguñ yéen ngeen ñu merci si liñ leen jox. waaye bëgguñ tamit ngeen fay ñëw. oustaz daam am loo dimbale naa oustaz daam ndax sama rakk la wala sama jarbaat la mu ngi jàng xel mi dafa baax bu ëllëgee bu liggéeyee di ma dimbale fekk man ma retraité déedéet loolu dimbal de. Hmm. da ko war a dimbale. si cadre islam laay waxee nag. waaw bu dee nag da ko defee loolu loolu intérêt la boo xam ne nii dañ ko jéggaani feneen indil ñu ko mais bu dee pour yàlla rek moo tax. waaw sama jarbaat sama rakk wala jàmbar la si man sax dimbale naa ko pour mu continuer njàngam. Hmm. dimbale naa ko. man na métier mais amul euh, atelier bu mu liggéeyee. Mhm. ma ubbil ko place bu mu liggéeyee. bu ëllëgee man su ma tëlee. Mhm. mu dimbale ma baax na su ma dimbalewut baax na man defoon naa ko te yàlla tax man yàlla dana ma jox loo xam ne danaa ko mën a dundee oustaz daam kon daal nit ki bi ñu koy dimbale bu ko dimbalee. Mhm. ngir mu wax la merci waaye bu ko dimbalee te yaakaar si moom ëllëg. lu mu la dimbalee oustaz daam. parce que euh, sunu borom nee na. xam nga mënoo maanaam booy dimbale nit. bëgg am fii merci. bëgg am fële tamit day xaw day day day kii. parce que nit ñi ñoom. Mhm. maanaam kuy xool li nga xamante ni moom da nga bëgg ñuy la merci loolu rek ngay xool ci ñoom. man mhm. ngaa ñàkk am li nga xam ne moom la si maanaam moom la la suñu borom dencal. parce que nit ñi li ci bëri fu ne ngisal rek la ñuy def. Mhm. li ñuy def lu lu ci bëree bëri bëri ngisal lañ koy defee. moo tax boo xoolee suñu maam sax si daa jëmaay laa wax na ko. nee na wa jaane biir yaa annaasi ñu ne ko lu tax mu ne laa nafa aminhum. moytandikul li nga xam ne maanaam mooy ngisal li. li di di jéem a ngisal ci nit ñi ne ko lu tax mu ne nit ñi amuñ benn fay. amuñ benn njëriñ ci yow. Mm-hmm. kon booy def defal lii wa ci laal kër mais yóbbu sa micro. Mm-hmm. wala yóbbu boog sa sa sa sa sa say caméra. Mm-hmm. wane na kii dafa ñàkk. nga jàppeeku ku ndimbal. su ah xëy na yaa ngi koy dimbale mais li gënoon maa maam nga def ko ci sutura ndax suñ borom dafa dafa <coughs> suñu suñu borom dafa bëgg sutura. mais oustaz fi ma ñëwee ba tey. Euh, mooy buñ ne buñ ne buñ ne buñ ne ndimbal kan kan kan lañ war a dimbale. parce que euh. yaa ngi ko yaa léegi. nga ne. ki yoré ay milliard mhm. yow nga yang yor ay milliard man ma yor ay milliard mhm. est-ce que war nga yëkëti man tamit dama jox ay milliard oustad euh, oustad dam mhm. ki ñu war dembalé islam islam euh, waxal nañu ko alquran indi nako ku ñu dimbale moom jafewul ku am ku looy dimbalee kan koy dimbalee jafewul. waaw all baa ngi sonn lool. te borom yi milliards ñu ngi fi ni teud rek. bu de nga bëgg dembalé nak leg nga gis ko waxuma sa nga dem ci àll bi mais bala nga genn fi ni gis ni ko yelloo waaw parce que fo xaar man ñëw parce que euh, da ngay gis ko xamni ni dafa ay dëkkandooram yu mu wara a am lu mu leen wara a jox leen koy dimbalé rombu leen fa rombu leen fa dem ci àll ba da dimbalé ñeneen maam rombu say dëkkandoor mhm. jël li nga leen dimbalé war leen won ko jox nga joyé ko fa yobbu ko ci ñeneen dafa mel lu dimbalé ci penc de oustaz waaw koku dimbalé na mais dimbalé ni ko fi nga xam ni gënul dañ nan wolof day wax ne kii la kuy wàlli hmm. dañoo tëggul sa buntu kër buntu kër uh-huh. te al aqrabu awla waaw ki gën a jege moo gën a yell man dama soxla ndimbal hmm. daa man yow ñoo dëkk hmm. am nga sa beneen xare bu soxla ndimbal mhm. te dëkku leen mhm. la joxe nag ma ko jox macha allah donte la mën a yow maneeguñ waaye nag ma ko jox na maa si gën a yell la ngay joxe du man nga koy jox mais da nga koy jox te yàlla tax en tant que julit ak moromu julitam oustaz Dame jërëjëf macha allah moom la woykat ba waxoon ku ñu tuddee Zuhair ibn Abi Salman naan mhm. wa man yaj'alil ma'rufa fi ghayri ahlihi yakun hamduhu ghamman alayhi wa yandam Zuhair ibn Abi Salman dafa wax ne képp xam ne yaa a jox joxu leen ko dem joxe ko ñeneen nee na tagg wañ la naroon na tagg dafay mujj nekk a xaste oustaz mhm. xam naa li duuf ci naw wi xajut ci cin li mhm. te mënuñ ko ci dugalandoor yëpp mhm. dama lay bàyyi rek nga tàggu oustaz waaw oustaz daam euh, di jeexale sama kàddu ci sant rek ñi nga xam ne ñooy waa Dak Médina TV ci fii ci medina seen taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñu koy taxawu Eh, li ma leen di ñaanal daal mooy yàlla yeggale leen mhm. foo xam ne day kaw seen njortu mhm. ak yow mi oustaz daam sa taxawaay bu rafet macha allah ñaanal dag mi daal mu suttale yëpp mu ngoog kon nag xaw ma on top lañ koy wax xaw ma nu ñu koy waxee noonu. dag Medina ah. yal na nekk ca kaw. Ah. yal nekk ca kaw ba tiim ñëpp. Ah, amiin waay allahumma amiin euh, mooy li nga xam ni bëgg nañ ko ñoom. waaye mm. yow bi nga xam ne tamit yaay ki ñu fi indi. Mm-hmm. bëgg nga loolu yal na yàlla defal loolu noonu. macha allah ba ngeen am ci seen satisfaction bu mat sëkk. amiin allahumma euh, bi jaay Mustafa euh, sallallahu alayhi wa sallam. macha allah yi am na solo rafet na leer na te jotale na mën na téléspectateur dama len ko waxawon de fi lay xew ci Dak medina TV émission yu am solo yi yu am njëriñ yi fi lay xew ci Dak medina TV képp ku bëgg dégg lu neex lu baax lu rafet lu sel lu yiw jappal Dak medina TV mbokk li lañ ni lon tay ci sen euh, jotaayu koor xamna lu ci leer ci sun borom la lu ci leerul ci man mi ndak gatt xam-xam ñak fa sa in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah عليه توكلت وإلي أنيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان نور هل سعد للأم طر رمضان فرصة عمر فيها للصائم طهر رمضان